Dial ñu ngi lay nuyu di la char caravane bi nga xamne mo and ak seigne Baara Ndiaye ak les patriotes ñëpp and ci ak ñom Lamine sa gaay gaay gars ci TikTok bi ñëpp te ñu la talal micro bi di la laaj ak solution TV di la laaj ci diwanu politique Louga fi ak laxaat ak sa cadre ñi nga andal ñu ngi leen di laaj bu baax assalamu alaykum bismillahir rahmanir rahim ginnaaw bi ma sante yalla julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam sante samay ñaari wayju di sante sama borom kër di sante ñëpp suñu gan yi nga xam ne ñoo def caravane ñoo fekk suñu fii ci Louga jóge Dakar ba Louga xam na ni sori na macha allah ak euh, koor gi nga xam ni tey Louga dafa tàng ñu ciy kontaan lool lool di ci am mbégte bu mag a mag a mag a mag ci Jomaay Sonko di ci kontaan lool ci suñu euh, président Ousmane sonk moom nga xam ne mooy suñu soppe di suñu lépp di ci bég bu baax a baax a baax a baax ci libération bi ñu ko libéré fii ci Sénégal di ci kontaan bu baax a baax a baax Adja Diallo ñëpp xam nañ ne jigéen gu am doole nga fii ci Louga léegi looy wax waa coalition Diomaye fii ci Louga ak ak sa diggante Abdoulaye Ndiaye kenn kenn umpale woo sa frère nga koy jàppale bu baax a baax ak sa cent femmes yooyu noonu nga xam yéen politique sa sanc bu sud nga jàppale bu baax a baax di nuyu waa Louga gépp di nuyu waa sanc ba rawatina sanc ba sant bi nga xam ne falaa dëkk di taxaw taxawaayu jigéen ñi sanc ba sant yëpp di taxaw tamit ci diggante jigéen ñi coalition bi macha allah ma bokk ci responsable des femmes leader fii ci Louga bokk ci ñi nga xam ni ñooy jàppale président man Sonko fii ci Louga macha allah di rafet lool nag sama teewaay fii tey waaw. léegi noo gisee suñu gan yi ak Abdoulaye Ndiaye ni mu leen teeru ak suñu coordonnateur maître Mademane Diop nga xam ne yow mi nga xam ne ba léegi bi nga jàppee ba léegi bàyyiwoo depuis élection locale yi ba léegi nii bi nga jàppee ba léegi bàyyiwoo yaay booy dëgg la yàgg na lool ndax 2018 2017 2018 du benn fan te booba la gënoon a metti torop nag ndax booba mën naa ni bin naan bi àll bi de kii ñun rek ñoo fi nekkoon waa ñun bari woon ku mel ne suñu koordinatrice coordinatrice euh, si soxo ku mel ne sama gaynde gu jigéen gi may wax soxna Mbène Waar ku mel ne Mami Sonko ku mel ne Aba Thiam ku mel ne Anta

ba tax na ñun jomaay rek la ñuy topp jomaay la ñuy topp Ousmane Sonko la ñuy topp topp ñu kenn moom rek la ñuy topp ndax lu yàgg dëgg la ndax ku ma gis fii may wax xam na ni ku ma gis xam na ni madame Diassé Ousmane Sonko rek lay topp jomaay rek lay topp depuis 2017 ba léegi maa ngi ci moom macha allah depuis 2017 ba léegi yaa ngi koy topp mais sa frère Abdoulaye Ndiaye mi nga xam ne moom moo nekkoon candidat fii ci diwaanu Louga ci ñaari élection yëpp yëpp jàll sa diggante moom lan la sama diggante ak Abdoulaye Ndiaye Abdoulaye Ndiaye sama doom la sama rakk la sama lépp la macha allah sama digganteek moom yàgg na depuis de 2018 la woon. ñu dem ci de 2019 macha allah ma nekk ci ma bokk ci jigéen ñi nga xam ne ñoom la boole ci listam kon loolu du benn fan ndax lu mel ne Abdou Lahad Ndiaye amul ku muy tànn lu dul man kon deseelatuma dara moo tax fu mu nekk macha allah war na fa war naa faa taxaw taxawaayu jigéenu Pastef taxawaayu jigéenu Sanc ba sant taxawaayu jigéenu les femmes progressistes de Sanc ba Santu waaw Abdou mën naa ne deselul jigéen ñi Louga dara deselul jigéen ñi sanc ba centre dara looloo waral sama teewaay fii tey. gis nañ depuis la coalition Diomaye président xaw a dominé nga xamante ni moom mooy capital bi mais actuellement dañoo décentraliser li nga xamante moom mooy euh, seen ay caravane seen campagne moment bi lan lañ mën a jàpp ci mobilisation bi fii ci Louga. waaw di wax rek nii Abdou Lahad Ndiaye ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul te Abdou Lahad ku mu àndal ku ne gestu na la te dafa fekk ni coalition Diomaye man naa ni ñoom mënuñoo dem sans jigéen ñi ni ma koy waxee bisu nekk mbenn waar mi ngi nii di ma dégg ñoom mënuñoo dem sans ñun ñu nit mënuñoo dem sans ñoom ndax coalition dafa metti fii ñu toll nii dafa metti ku ni mettiwu rek waxoo wax nga lu la waxoo lu la neex dafa metti ba pare dafa dur ndax foo xam ne dara nekku fa nga nekk fa ba tey ba dara nekk fi man naa ni dara tane na tey kon metti na jaaraamaa ñi fi nekkoon démb kon di daw ba tey macha allah. yi nga xamante ni aussi am nañ fi ay coordinateur waaw mel ne Abdoulahane Ndiaye dafa am euh, sunu coordinateur bi nga xam ne mooy suñu coordinateur muy maître Diop Modou Mané Diop ñuy liggéey liggéey bu rafet fii ci Louga di liggéey liggéey bu rafet ci coalition Diomaye fii ci Louga mën naa ne du nangoo des benn yoon gannaaw ànd ak nag ay xale yu baax yu brave ku mel ne Abraham ku mel ne Kodos ku mel ne Pape Moussa ku mel ne nuñ ko waxetee sax euh, ndonga daara ku mel ne Adja Ami Sey ku mel ne Adjami Sey ku mel ne Mara Niass Mara ndongo daara ku mel ne Badra Badra sëñ Badra ku mel ne Abraham ñooñu nga xam ni macha allah ku lim jum ku mel ne Jibril Samb waaw ku mel ne ku lim juum daal ku mel ne Bachir ku mel ne Cheikh Tidiane ku mel ne Basirou Kane ku mel ne Nabi dafa ànd ak ñoo xam ni ay ñoo góori fàkk tëdd yoo xam ne duñu masa dañuy daw rek révolution bi ñu gis Pastef di andi mu nekk ab innovation politique parce que gis eh, nañ jeunesse patriotique gis aussi jigéenu Pastef magu Pastef doomu daara te d'ailleurs sëñ Baara Ndiaye ak ki eh, nga xam ne moom mooy Mara ñu ngi sur le terrain aussi tamit eh, ban jàngat lañ mën am si lu ni mel waaw loolu ñu ci am jàngat bu rafet ndax ku mel Mara Niass xam na Dakar dafa sori jóge ba Dakar ñëw Louga ku mel ne sëñ Baara Ndiaye ba Dakar ñëw Louga ak koor gi ni mu dafa kon mooy wone ni ñoom dara ñorul lu dul changement ñu soppi suñu réew soppi suñu doxalin soppi suñu defalin ñun foofu la nu toll foofu la ñu toll ñun jomaay coalition ñun foofu la ñu toll dañu toll ci soppi dundin soppi doxalin soppi waxin soppi suñu réew ñun foofu la ñu toll. ñu bëri ñu mu bàyyi nañ ko mu geef li nga xam te moom mooy point de presse conjointe moom ak Bassirou Diomaye Faye bi leen gisee ak gëj a gis Bassirou Diomaye Faye mois. Ousmane Sonko à peine 9 mois lu leen gisee ban mbégte nga amoon. xanaa kontaan macha allah yow nag tey yaa ngi doog a laal sama sama kii damaa bég mën naa ni bi nga xamee ni damaa dogu ba pare damaa dogu rek tëdd mais ne dama ko yëg sama yaram bi ma tëddee ba ay 2 heures du matin ma jóg ni naa naa fi la julli samay julli bi ma jullee ba pare taal sama téléphone rek gis gis samay appel damaa kontaan ba xaw ma fu may taxaw mën naa ni damaa bég lool bég gi ma bég xaw ma sax dayo bi mu toll. ndax ku mel ne président Ousmane ko ku mel ne Diomaye ñun dañ ko politigal ñoom ñu nekk ci biir ñun ñu nekk ci biti di ko liggéeyal te loolu dafa jafe nekk ci biir ñun ñu nekk ci biti di ko liggéeyal mel ne ñoom ñi ngi fi loolu dara dàq ko fu nu war a teg suñu tànk ñu teg fa suñu tànk foo xam ne war nañ fa wax ñu wax ko lu nu war lu nu war a def ñu def ko ñoom ñu nekk ci biir loolu dara dàq ko loolu loolu dayo bi mu am munu ma xam sax nu mu toll macha allah Diomaye Faye aussi lan lañ mën a xaar ci moom parce que Ousmane Sonko nee na du fayantoo waaye nag dinañ def bàyyi yoon mu def liggéeyam ndax loolu aussi ñenn ñi duñ jàpp ka ni Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye Faye bu jëlee bi mën na andi ab fayantoo ak liñ leen teg yëpp. ñun foofu la ñu toll xam nga réew dana toll foo xam ni man dama contre fayantoo fayantoo ñun doxewu doxewuñu foofu xoolewuñu tamit foofu ñun lu jëmale suñu réew kanam lu jëmale suñu jeunesse kanam. lu jëmale askan bi kanam ñun foofu la ñuy xool waxuñu waxi fayantoo ndax nee nañ fayantoo as du ko def fayantoo tamit jullit akkan du ko def man maa ngi tudd Dial Thiam ñun Yacine Thiam jiite les femmes progressistes de Santhiaba Centre di yor euh, jigéen ñi ba santu macha allah di yëngu ci social di yëngu ci lu suqali jigéen di yëngu ci lépp loo xam ne dana dooleel jigéen foofu ci sanc Bassante man ci loolu rek laay dox. mujib mujib. mujib bi tam macha allah ndax mujib bu leen fàtte ni fii Louga mujib amu fi ndax mujib bu am Louga ñun war nañ ko mën a xam war nañ ko mën a yëg bu fekkee ni ay kayit lañu wax ndax ci olof laa ko wax bu dee kayit la ñun gisaguñu kayit bu firndeel ni mujib am na fii ci Louga ndax coordinatrice si soxo mooy sunu njiit macha allah man maa doon seen porte parole kon mujib warut a mën a am te ñun yëguñu ko. kon moo jub ci Louga ñun bokk yëgaguñu loolu macha allah yëgaguñu ko loolu rek laa amoon ci lu doole.